bismillah asalaamaaleykum rahmatullah mbokk yi ñu del siwaat euh, comme niñ leen ko waxee woon ci deusième partie bi nga xamante ne bi euh, dañ ciy waxtaane Serigne Touba ak mbindam maanaam Serigne Touba ak xasida ndax bi nga xam ne ne yàlla da ko waajal ba noppi indi ko jamono dafa wut pàggu tiifu boppam ndax yàlla sunu borom ku mës a ku ne dalaa boole ak pàgguteef bu dee yónnent yàlla Musaa suñu borom daf ko yónni woon boole koo yetam ba bu ko sànnee mu doon jaan bu ko yëkkatee mu doonaat kon moo doon pàggu téefam bu dee Seydina am sallallahu alayhi wa sallam mu boole ko ak alxuraan noonu la ko defee yonent yëpp euh, Serigne Touba nag waxal boppam ne man sama pàggu téef mooy sama xasida yi te loolu tamit lu am a am la ndax boo seetee ku mas a ñëw adduna di jihaat danga ànd ak mbooloo mennum Serigne Touba la sëñ Moussa Ka wax ne àndul lu dul xalimaam yéeg ci kaw tund jeewale kon àndut ak kenn ci jihaatam ji ku dul xalimaam ak daam ak fooy bu weex ba muy bindee kon bismillah ñu jox sëñ war mu nuyoo ñu ñëw ci sëñ Tuuba xasida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh soxna jërëjëf ah man de xawtul allah li nga wax ci xasida yi sëñ bi waaye sëriñ bi de moom yi moom li nga ko waxee rek ndax li mu wax mooy karaamati xattu ye di la wax sama xasida yi moom mooy sama karaama nga xam ni eh, am na foo xam ba fay ba fay digle dafa wax ni eh, sama jumaa ji sama doom yi sama xasida yi ni sama jumaa ji di képp ku ci feeñ dóoreel ba faw ku ci doo di feeñ ba faw sama doom itam yar naa leen jàngal naa leen teg naa leen coon saat mu saqim ku ànd na ñoom dundeet na réeral waaye daa wax ne xasida yi nag mooy samay tànk jëmm nag soo yàggee topp tànk bu yaay dangas lu bokk ci moom kon xasida yi moom mooy jëmmi Serigne tubaa daana wax ne man de xasida yi maa leen bind waaye ñu koy jàng maa leen tànn daana wax ne man day jaboot laa ju bari soow te amu murle waaye sama bottu wenn muy xasida yi kon ñëw di nàmp si daal di xasiidati faaxat xasaayidal kiram wala yi tax taquudu abadan xayl maram kon ku ne xam ne ni kon soxna xasida yi Sëñ Tuubaa yi moom kawe lépp mboolem xasida yow mos a gis bi bi ñëwee xasidaam yi kawe na leen moo tax euh, boo xoolee ci mbindam sax bu ñu delloo ci euh, xasida ak euh, maraaxib da cee wax naan wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mu taarix na ci rabbi nga xam ne xasida moom boo koy jàng sax da lay tërbiye goo xam ne mënoo ko amee ci loolu ci xasida moo tax mu wax naan tuwasilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu aqaaka ma axna ca xasida Sëñ Tuubaa itam soxna moom ngay jàng ba mujj nga bokk ci li su di wax naan ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna bokk ci wàllu suñu ba mi nga xam ni duñ tiit dara duñ jàq dara ànd ak mbégte mu sax àdduna ak alaxira loolu mënoo ko amee loolu ci xasida yi xasida ngay jàng dem ba gis sallallahu alayhi wa sallam jàng dem ba gis Seexul Xadiim mii nga xam ni eh, dëdd na ci saahir waaye dëddul ci batin lépp mënoo ko amee ci loolu ci xasida xasida ngay jàng ba ko la gis ku ne xam ne yi am na lu nekk ci yow dara mën na ko def ci yow loolu xasida Sëriñ Tuubaa yi xasida yi te moom ngay jàpp ba di nga am adduna di nga am lépp mi ngi ci xasida yi soxna euh, bu ko defee am na ci yenn yoo xam nag Cheikh Abdoul Khadim Mbacke daana ci soññee lool ñu di ko jàpp ngir mu ci soññee ngir ci sahir ngir mën koo jàng baax a baax da ci am aajo yu faju ci dunya ak alaxira ndax daana wax ne day xasida gi ñuy wax rabbi maay sa axsan xarafa jaa ne soo koy jàng day lépp looy ñoddi daana jàpp ni ngir mu ñëw daana wax itam moo wax bi naafi day day bijj ay xéewal ak ay njariñ daana wax ne itam day maraaxib day ko koy jàng ku nekk su boom dina tërbiya daana wax itam nooru daarin day day gën nit ci jaamu yàlla nga xam ne boo koy jàng rek suñu boom dalay xiital ci nga mën a jaamu suñu boom tabaraka taala daana wax day mm, xasida yi nga xam ne mooy jaawartu moom ñëpp war nañ ko mokkal wala ñu fexee koo am denc ko ndax képp koo xam ne faatu nga nga mokkal ko suñu la dencaale ak moom wala nga mokkal ko kenn laaj ci bàmmeel su sax yi mbàkk si def na ko téerim ba xasida jaawartu képp koo xam ne dencaal na la ko kenn du laaj ci bàmmeel xasida jaal képp koo xam mokkal nga ko kenn du laaj ci bàmmeel kon loolu yi xasida yi moom li ci nekk lépp mënee su ko xiyaas mënee su ko leeral bu ñu xoolee am na ci biir xasida yooyu ci mbindum nóoru daal ni boo ci demee da fekk sëriñ bi di ci leeral lu bare bare ci ci xasida yi nga xam day day wax naan euh, nga xam day wax naan hajat xasaayidi xulóobal anbiya maham malaayka di hind rabbiya nee sama xasida yi day jeqi xole yonent yi alayhimu salaatu ba tey mu waxaat ne hajat xasaayid yi xal ba kulli man lahu saharatun walin xaalal aman nee na képp ku nar a texe day sama xaside yi day yëngal sab xol maam maam day jeq sab xol euh, moo tax mu wax ni naabat kitaabati yi xanin naafili xanin nawaafili wala si yadri abadan euh, bi aafali nee na sama mbind day wecc na mboolem naafili yi man nag sama weer du suux ba tey Seexul Xadim foofu mi ngi fi leer naan kitaabat yi min lawhi rabbi tunxalu laayamtari fiiha nabihun yanxilu ba tey nee na sama mbindee ca loxul mu fës laa ko taxaw ma seen xadim ba tey daal di ñëwaat kon ci tuwasilu aqlaami ilallaahi xaabidan bilaa xalwatin wala abxaaka ma axna nga xam ne moom soo koy jàng rek dangay ngay daal di eh, àgg ci suma daa ko taxalaa lu bokk tëg ngay eh, nekk di eh, dugg xalwat wala ngay wéy wér yu métti moo tax mu ne doona makaati bil xibaaraatu bi taqarrubi kullal masaaya jamaha jàmm yàlla yépp nag yées na sama mbind kon xasida yi moom bu ñu ci doon wax suba ngoon ak sa yëkkoon ak sa kon loolu mooy Serigne Touba tamit ak xasida mu mel ne kon foofu nga daaneele fi la ñuy jëlee ci Serigne Touba xasida euh, Serigne Touba fonk gu mu fonk mbindam mi daan daana tax mu ne ko ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko mbaa sama xasida yi bu buñ ko dee jàng du ngeen ci bërxal mu ne ko luy loolu mu ne ko buñ ko dee jàngee ngeen di wax yeneen wax yu ca bokkut ndax sama xasida yi buñ ko dee jàng aras day jaayu malaaka yi wàcc ba ñëpp di sàbbal suñu borom sama xasida yi koo xamante ne bii ñu ngi koy jàng demee ni màggal yi nga xam ne bu ñuy jàng nit ñi dañuy ne ca ginnaaw di def ay waxtaan mu ne koo xamante ne buñ koy jàng yaa ngi ciy bërxal lu ci bokkut ba liggéey malaaka yi suñu borom yi dinañ la bërxal sa war ma ci man dara mu ne ko ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko na nga xam ne sama xasida yi sama yàpp yaram laa dagg jox leen nanga nga xam ne xasida yi sama yàpp yaram ci laa dagg jox leen kon war na noo fonk xasida yi bu baax a baax suñ ko daan jàng ci njaarim ko sotti naa ana ku wax ji ko Mbàkke Bàlla yaa ko wax mu ne man waaw ñu ne ko suñ borom a xam ne sëñ def ci melal yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne bi naar yi ñëwee naan ko ngaa niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la moom nan woolu woon ñu di ko jàng bëggoon nañ tamit diggante boobu nga leeralal ñu ndax murid bu daanoo naan ko yaay yàlla ñii naan ko yaay yonent bi loolu nag bëggoon nañ nga leeralal ñu ko waaw loolu de soxna macha allah ndax jësbul xulóob moom jeex na takk mooy xasida gi nga xam ni eh, lépp da caa wax sallallahu alayhi wa sallam ci dara ndax noonu yi nga waxoon bi ñëwee di ko di wax naan ndax mooy yonent bi du moom biñ koy jàngal xasida jës bi rek ba agsi ci e, bayit yi nga xam ni e, teewlootuma ko waaye bi ñu ci agsi daa gis ni daa bi ñu daa def ni loxoom muy sotti am ndox mu daal dugg ci biir kon ñu xam ne moom mooy seexul xadim moom mooy sallallahu alayhi wa sallam xarfan bi xarfin ndax e, danañ ko laaj ne ko ñu ko dañu gis weñ dalay dal te ko weñ daw ko dal mun waaw jëmm ak takk ndeer takk ndeer ku ne xam ne kon weñ maanaam du ko du ko dal loolu moo tax waaye gis bu xulub bokk na ci rek ku koy jàng nekk day desetal sa xol wecc wecc nga xam ne sax ñu ngi wax ni bépp kër goo xam ne def nga ko fa sax mboole waa kër yëpp daan maase juboo dana maase bëgg yàlla te di ko jaamu daan maase doon ay taalibe xàqan kon gis bu xula ku koy jàng nekk faaw sa xol day soxna kat nit ku mën a doon ku ne ba sa xol rek li nga bëgg lépp doo ci am dara ca xol bu rafet dong nag mooy jëriñ àdduna mooy jëriñ alaaxira ndax yow ma laayan fa maalun wala banun illaa man atallaaha bi qalbin saliim kon xol bu sel xol bu set am na solo lool gis bu xulub nag bokk na ci yooyu mu nekk nag euh, xasida gu yéeme yéem goo xam ne itam yu baree bare ma nga ci biir ndax da su suñu borom tabaraka taala dogal na ne sëñ bi da cey wane sallallahu alayhi bay wu ci dara dara ci moom dara mboolem fu mu jaar rek euh, bayiwu ci dara ximal euh, xafisi maanihi yoxni an li madaafihi li kulli abdin xaasi yatlubu xel xoro bi bidiwu am na ci nekk yoo xam ne xam naa ay secret insha bi rabbi bu ñu jógee fi jëm la ko baaxee ndax xam naa yow waaye waay gis nga bu ko defee xam naa kon bala maa jeexal foofu sama waajur mi ñëw wa kaana haqqan alaa nas na ndax euh, dañu nekk barab boo xam ne dëkkuñu fi. te day xasida goo xam ne bi ko sëñ bi di bind ci gànnaar. Euh, da ko bindoon ba noppi waaye ba ñëwee di ko tawat ay jafe-jafe ñoom waa naar yi ci la ko bindoon jox leen ko. ci lañ daal di am jàmm kon képp koo xam ne yaa ngi fii rek di sàkku jàmm ak mboolem ñoo fa nekkal ndax xam ne kat foo ko jàng fu nekk mboolem téeméeri bunt kër yi la wër yëpp yaa leen di araare xasida la goo xam daal koy jàng ku ne su moom ne la defal jàmm mooy wakkaana xaqan xali naa ne su moom ni la xasida gu yéeme yéeme nag xam naa ndax damay bañ mu xaw a nee naa ñetti bayit yi képp rek jar na jàng wakkaana xaqan xali naa ndax boo xoolee rodda maka idal xida ilal xida yaamal xabaani bi wax ñul xida delal pexe noonu mu demaat ci noonu yow mi nga xam yaamal gàcc noonu waaye li gars yi sàkku lépp nag tam xaw leen jafe sa jàng xasida gi moom dalay yomb ndax nee na yasir lahum bihi la si taxasra fa kullu maa yasirtahu taysra yow suñu borom day lépp loo xam mu leen jëfoon ndax yow suñu borom lépp loo yombal mu daal di yomb nga dem ba jeexal mu naan la mun naa la xaari isin roofi bi maa ngi fooxu sànni ma roofi kon xasida gi mat nay jàng ndax koo koy jàng suñu borom day dogal ne sëñ mi ngi lay ñaanal di wax naan yow suñu borom yàlla na nga xéewalal kii nga xam mooy jàng araf yi xéwal goo xam day kaw njottam te def naa xéwal kaw njottam moom la gaa yi wut soxna ma faatal bisi ma faatal bisi loolu wér na ndax dañuy wax ni suñu du ko ñaari yoon ndax bu dee xasidi gi nga xam ni moom la mujj bind boobu mi ko bind ceeñ jolof te loolu ginnaaw géej gi la boo fekk na Sëñ Fallu moom bi Sëñ Tuubaa dem ci géej gi fi la ko bàyyi ndax bi ñu bi sëñ bi muy tàggatoo ak maam Thierno daa boole Sëñ Fallu ak Sëñ Mourou Moustapha te si ñaareel bopp yooyu teg ci loxo daal leen ñaani dénk naa leen yàlla loolu Sëñ fal mu ngi nett mu dégg ci kàddu kàddu boppam laa ko dégg mu wax ko kon day mel ni googu moom moom mag xasida gu mu jigéen wax na nag daa bind ñaari xasida moo tax ndax ba muy bind ba toll ci yaa faadileen fadlahu xalaaxu yaam bi faarixanil imlaaxu ne la ñuy nag soxna si am na gan moo tax bayit yooyu ni mu daal di ko ci joyal jëmee ko ci sëriñ Fallou kon noonu demee waaye bu fàttali bis itam li jox soxna moo ci am xasida goo xam ni eh, jëlee nañ ci Sëriñ eh, Abdou Khadre mu wax ne képp koo xam ne yaa ngi koy jàng soo ko jàngee ba noppi mel nga ni eh, liir bi yonente ci ñàkk bakkaar ma fàttax ma bisi nee na soo ko jàngee ba noppi itam mboolem bis boobu ko jox loxo rek su moom dina ko texeel euh, ma faatixul bisri si mu daan wax naan ahmadu mi nga ci bisri moom ma faatixul bisri boobu waaw te it nga xam ni am na ci bayit woo xam ni wu ci nekk la woo xam ne suñ baax na lool ci gars yi yaxantu xam naa ku xam ko nekkoon dina am solo lool xam naa loolu itam dama koy dugalaat ci question bi moom itam nga xam ne daal euh, xam naa ci kanam incha allah da danañ ci ñëw waaye ma faatixul bisri bokk na ci xasida yi nga xam ni damay wax ne man boo ko jàngee sax man mbedd moo jaar rek ku fa jaar ku ne su moom di la jëggal mm-hmm. ndax ndegam boo ko jàngee ba noppi mel nga ne liir bi yonente ci ñàkk bàkkaar mm-hmm. kon ku ko jàng ba noppi rek am nga maqaama ak daraja yoo xam ne si nii mënoo ko amee loolu ci xasida Mafatihul Bichri waaw te mooy ceeb bi ubbikaay mbégte mbég mi euh, kon sëñ Mor tamit lool moom am na solo lool ci mu faatixal bisri mu mel na ñun tamit amoon nañ xasida goo xam ne moom lañ tudde woon suñu daayira ba moom mooy mu faatixal jinaan moo daan ñu ngi ci ziyaare waa daayira mu faatixal jinaan Touba Forage ñëpp ñu ngi leen ci ziyaare moom la ñu Serigne Saliou bindaloon ci loxoom bu ñu ko euh, kon tamit bëggoon nañ nga leeralal ñu ci foofu ndax nee nañ mooy tëj bépp buntu njàqare di tëj buntu àjjana yi kon bëggoon nañ nga ñëw ci ndax ñun sëñ Saliou moo ñu ko tudde woon waaw ndeysaan yaa ngi fàttali soxna ci xasida googu di mu faatixal jinaan nga xam ne mooy ceeb yi ji nga xam mooy ubbi na waaye wa ma xaalixu niiraan waaye mooy itam bi nga xam mooy fekk sa war a waaw eh, bi muy fàttaliku noonu ko waxee noonu la amee sëñ Saliou ci boppam moo jël loxol boppam bind ko ci aw kayit di wax ni mafaatihul jinaan wa ma xaalixu niiraan tëdd dinaa leen ko xasida googu nag xasida gu yéeme yéeme la yaakaar naa képp ku bokk ci kay simi sàmm ku nekk rek da nga xam xasida googu ndax yaakaar naa ne boo déggee ñu naan fossi bi sarfil xasanaat sayidatan li muhsinaat wala nga dégg malaktu afdala basar rek wala nga dégg ahbabtu rabbana alamin mahal amini wal amin man xaara sikruhul amin li kalkali wa jasidi faaw saxal dana dem ci daaju waa kër Serigne Moussa Mbacke kon ñoo ngi ci profité kon di siyaare mboolem waa kër Serigne Moussa Mbacke yépp rek eh, di di wax ni xaside yi moom moom buñ koy jàng rek war nañ cee sant bu baax baax ku tedd kooku ndax baneen loo xam moo ko ci liggéey ndax xaside yi kat Sëñ Tuubaa moo waxoon ni maan bi waaye Masamba kat xaside yi ñoo sàkk Masamba di leen maas kon ñoo ngi ci siyaar mboolem waa kër Serigne Moussa yépp di siyaar mboolem ak njabootam ñëpp ñëpp xasida googu na soxna mooy xasida gi nga xam ni moo ubbi bunti àjjana te tëj bunti sawara kon loolu doy na sëkk waaw waxuma laa la ji nag ak kon Serigne Mor loolu tamit am na solo leeral yi am na solo lool lool ci xasida mu mel ne bindum Serigne Touba moom buñ ci doon wax fii ba suba it du jeex ndax li mu bind moom xajul sax ci ay ay at waxatumaa nag benn jataay waaye kon dañuy ñëw tamit ci Serigne Touba mu mel ne bi muy départ di dem ci géej gi mu ngi doon woy xasida ku ñuy wax asiru nit ñi man moom sama dégg toxu koo neex lool waaye ci la doon xamal ne daal ay njëndeem wéet na samay daara wéet na tàggale na na ak sama ñooñ te dara waralu ko lu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a julli rek ñu ne ko du fi amee foofu la déparé woon ca ndar fa la woye woon asiru nga ñëwal ñu ci ok soxna jërëjëf jërëjëf soxna ñoo ngi lay sant baax di la gërëm émission moom xam naa danaa na moom yaa ko moom ndax liñ ci xam ba di ko leeral sax man xawma ci xaaj bi waaye macha allah ndax sëñ moom ndeysaan bi muy jógee ci eh, mbakki bari googu nga xam ne boobu wax naan xarajtu yawma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fi sëri safar génn naa ci bisub gaaw fikk fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéey sallallahu alayhi wa sallam bis boobee nag ci fajar googee ci la jël si mu Moustapha si fal leen dégg naa leen yàlla ak seen bàyyi Ceerno mhm. daal di départ nag daal di dem jaar tund jeewal daal di jëw ndar foofee nag fa wax naan asiru maal abraari hina asiru wasannal hida ani hunaka asiru man de maa ngi dox ànd ak gaay yu baax yi yéen ngeen jort ni maa jàpp waaye man de maa ngi dox ànd ak gaay yu baax ñi ba mu ne ba ci biir ne foofu naan xasuuree xalat xanii tafaraxat samay daan na samay sàkket daan na waaye ku ne xam ne bu ne ba ci kanam tuuti rek dégg li naan xale ma ni rahmaani fi safina bi ànd leen xadimu sil madina suñu borom de moom xamal na ma ne man kat maay liggéeyu sallallahu alayhi wa moo tax ba mu demee bay ñëw di wax naan ijxal rujuhi ila xawmi saadatana wa takfina fii naa yow na xalxi niiraana su borom yow defal sama dellu gii jëm ci sama ñooñ mooy mooy ñun ñooñee mu nekk seen texe te it nga fegal leen ëllëg yoom xiyaam sawara sa foofu suñu borom dogal na ni sëñ bi soxna dañ na foofu lu nekk am na manga goo xam ne si ni am na fa juróomi at yoo xam ne kenn tëggul ko lékkul lu bàyyi ko ci cin waaye juróomi at yooyu fa la ko sax ca ron mango googee ba yàlla dogal la muy dogal ci moom mu daal di ñibbisiwaat indi xéewal yoo xam ñëpp xañ nañ ci kon yàlla na yàlla dimbali taas ci barkeb Serigne Touba liñ bëgg wax lépp mun ñu ko wax lépp xëj ji waaye ci gàttal daal maa lay xam ne la Serigne Touba amul moroom nañ sant rek nañ sant rek te xam ni sant moom moom moom ku ko def wa in taskuru yardahu lakum mm-hmm. yardahu lakum képp koo xam ne sant na nga daal moom su moom dana la gërëm mm-hmm. kon nañ sant yàlla bu baax a baax sant la ko Serigne Touba nañ sant Serigne Touba baax a baax nag sant la ko yàlla mm-hmm. kon yàlla nu yàlla àggale ci bisu bisu safar boobu yi ak Seeru Xadim jërëjëf ñu ngi sant tamit soxna su baax si nga xam ne moo doon def bernde yi tànday ja moo ñu defaral bisaab yi xéewal yu sedd yi yépp ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal di sant tamit euh, soxna su baax si nga xam ne moo ñu doon solal di ñu maquillage ba mën a jàkkaarloog askan wi ñoo ngi koy santal bu sant bu baax a baax a baax liggéeyam rafet na di sant suñu techniciens yu xaraj yi ñu jàkkaarloo tamit ñoom tamit seen liggéey rafet na seen euh, koro Kar masalla yal na yàlla sotti xéwal ak yërmande ci barab bi ba suñu média bi wala média boo xamante ne bii ñu ngi koy dégg si kaw ak Gambie ñoo ngi lay nuyu yow tamit di la ziyaar sa liggéey rafet na yal na yàlla yokk kàttan geeg doole ji ba média bi gën a kawe mboolem média yëpp rek si barke 18 safar gi